Well, ay ndaw lañu alxuraanul karim mooy li leen yitteel tax kuréel gi di URAS GIE ñu war a jëm ci weer wu sell wi weer wi alxuraanul karim wàcc fees dell ki yiw tax kuréel gi ëmb ay ndaw yu yëngu ci wàllu développement ñu duppee seen bopp URAS GIE teg neexal bu am solo lu jege génn wàllu million ngir baaxee ko xale yi seen njàngum alxuraanul karim dal di ñoŋ moo xam ca mokkal ga la wala sa tajwid ba la lajnatu taxkim bu URAS info war a déglu ndaw yooyu le séddale leen lu jege genn wàllu million bile soññ leen ngir ñu wéyal seen njàngum alquraanul karim ne mooy kalimatul xaq kuréel gi di URAS di woo bépp ndaw bu motalul fukki at ak juróom te mu bëgg a bokk ci concours bile fam toog lay toog jàng alquraanul karim ci anam bu sell diirub ñetti simili délai bu mujj ngir yónnee sa vidéo fukki fan ak juróom ci weeru avril bi concours bi nag dinañu ko awal ci sunu chaîne YouTube wala sax Facebook URAS info U R A S info ku ci bëgg a bokk say at ba a wees fukk ak juróom fa nga toog ngay toog daal di nas ak vidéo jàng ñàng mu sell envoyé ko ci telegram wala whatsapp 77 522 33 41 wala 77 424 31 25 mbaa sax sunu adresse email uras info 1 arobase gmail point com